ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di sant yàlla bu baax di julli ci ki gën ñëpp di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada yi di nuyu mboolem waa senegal ñëpp kenn desul tabarakallahu di dellu siwaat ci site bu am solo bi di Amsa TV nga xam ne bokk na ci barabu jàllalekaay wax yi nga xam ne daanaka bu ëppul solo it bokk na ci ëpp solo kon ñu ngi nuyu baax suñu technicien bala ñoo tàmbali Serigne Samba di ko ziyaara nuyu it Serigne Moustapha jéey bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko taxar ko tey nag mbokk yi ñu ngi fas yéene waxtaane fa tabarakallahu ki nga xam ne mooy waral yëf yi dañuy faral di wax ne lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole te yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy suñu royuwaay mooy suñu référence yonent bi nag moo yàgg di xewle waaye rawatina jamono bii ñu toll nii jamono bii ñu toll ni mbokk yi mboolem kuy jullit xel yëpp ci gàmmu lañ jëm xel yépp nan lañu def ba màggal guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawlidu nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam daana màggal guddig juddam bésab juddoom moom yonent bi da ci daan woor maanaam altine ju jot ju ne sallallahu alayhi wa sallam daan woor altine ji bu ñu ko laajee ne ko nabi lu tax ngay woor ci bés bi mu ne fii fiihi wulittu ci bés bi ci laa juddu kon nga yëg ne yonent bi moo njëkk a màggal bésub juddoom moom sallallahu alayhi wa sallam bés la boo xam ne nii nag mboolem lu yàlla bind mbinde fi yàlla yëpp ñëpp dañuy ànd di ko màggal moom juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan lañ koy màggalee nan lañ dundalee guddi gi cheikhul xaaji malik waxoon ne ala azimu layla alwiladati xisbatan isa lam yakun naxwa alxaraami xodoolu alaa dama ne alaa waawee azimu layla alwiladati na ngeen màggal guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xisbatan ngir ngeen sàkku yiw sàkku tuyaaba waaye nag ci condition bii isa lam yakun naxwal xaraami odul su fekkee ne façon bi ngeen koy defee day dëppook nu yàlla gërëm dëppook moom yonent bi nu mu gërëmee man ngeen a màggal guddi yonent bi léegi nag dafa am ñoo xam ne ni ñoom niñ koy màggale daanaka am ras dem la rek xam nga lii wolof di wax ne ñii ñii gàmmoog ñii raas dem bokkunu am na ñoo xam ne nii moom seenu gàmm daanaka jarul ñiy dem gàmm ndax su fekkee dangay dem gàmmu yow li la fa yóbbu mooy nooy def bokk xotti poosub jaamur lan nga cee jël su fekkee da ngay dem gàmmu nan ngay def ba dal ci ak kër ba xool portable ba ñuy branché di ko chargé nan nga koy jëlee su fekkee da ngay dem ci gàmmu joxante fa rendez-vous ak keneen koo xam ne léwu kon gàmmu googa loolu lay la Cheikhul Hadj Malick waxoon ne ida lam yakun naxwal xaraami odulu su fekkee ne la ngeen fay def dëppoo naag lu yàlla gërëm Sëriñ Tuuba mbokkam ma Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu wax ni fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gada faxtariman wa azimi Sëriñ Tuuba nee na képp koo xam ne màggal nga guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow li ngay def mooy dang ne tey mooy bésu gàmmu tey mooy guddi juddu yonent bi kon dama koy màggal Sëriñ Tuuba nee na na nga xam ne ëllëg kenn du la réglé Cheikhul Khadim moo wax te xam nga ku mel ni Serigne Touba du waxee ak bànneexu bakkanam lu mu wax rek am na ci ndigalu suñu borom am na ci ndigalu yonent bi moo tax mu ne kon falaa yu xaasabu xadan nee na ëllëg kenn du la réglé soo teewee ci kanam yàlla nga màggal ko nag niñ ko war a màggalee moo tax ñuy wax nee na it képp koo xam ne nii màggal nga guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la bir ne mel ni ne fakka shahidan shahida badran bi xayri wahmi nee na dafa mel ni da ngaa teewee xeexu badar te mbokk yi badar ña ko teewee woon eh, martyr yi ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñëpp tabaarakallaahu yàlla yiw wi mu leen dencal nee na ku màggal guddi yonent bi dafa mel ni teewee nga badar nee na it képp koo xam ne jël nga sa dërëm nga dépensé ci guddi gi ñu màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa mel ni fekkee nga Xunayn dafa mel ni fekkee nga Badr dafa mel ni donte donte dërëm la noon walaw bi qadri dirhami donte dërëm dërëm cinq francs moom nga jël ne man lii moom laa maa ngi koy def ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mbokk yi yonent boobunte bi muy juddu dafa juddoo ci ñaari ku góor ak ku jigéen yàlla da ko tànnal ay ndeyam ak baayam xam ngeen d'accord geen ne Muhammad ba ci maamam Adnaan yonent bi moo moo wax ay maamam ne bu kenn weesu Adnaan léegi jàppal yow mi may déglu jàppal Muhammad ma limal la ko ba ci Adnaan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la laajoo koy baayam neel Abdullahi Abdullahi Abdul Mutalib mooy baayam Abdul Mutalib Hashim mooy baayam Hashim abdi manaaf mooy baayam abdi manaaf xusay mooy baayam xusay kilaab mooy baayam kilaab murrata mooy baayam murrata kaab mooy baayam kaab luway mooy baayam luway xaalib mooy baayam xaalib fiir fiir malik malik nadir nadir kinaana xusayma mudrika ilias mudar nizar maad adnaan Cheikh El Hadj Malick ne man yu jaawisu Adnaana fa takzibu qad jaa min al alami kon Adnaan kenn du weesu maami yonent bi fii la yonent bi waxoon ne nañ fi yem suñu lim ay maamam kon wax naa la càllalak baayam baayam fii la yem càllalak yaayam Aminatu bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibnu Zuhrata ummul Mustafa al alami Amina mooy yaayam jamono bi nga xamee ne nag leer gi. jógee na ci ndiggal Abdullahi gane biiru yaay Amina deux mois la fa am rek Abdullahi daal di génn àdduna ñu ne Cheikh El Hadj mu ne ghadaa bi abwaaha xiina Abdullahi xiina mada shaarayni lil hamli hada ashhur al kalimi El Hadj Malick na bi muy am deux mois ci biiru yaayam yaay Amina ci la Abdullahi génn àdduna kon yonent bi ci zahir gisul baayam bi mu juddoo nag ab juddum nekk juddu bu doy waar yonent bi dafa judd rek mbokk yi xam nga sooy taaya soo jullee ba deuxième rakka am doo doo tàllal sa loxo yi rek ni teg sa loxo nii ngay def da ngay lem sa ñetti baaraam yi ngay lem soo ko lemee nga jël baaraam bii nga teg ko fii sa loxo tàllal baaraam bi am na nag ñu koy yëngal di ko def nii am na ñu ko dégg ni mu taxaw nii rek ñenn ñi dañu ne lii soo koy def sa baaraam bi seytaane nga koy dóor ay dóor la ci moom soo ne nii nag yaa ngi kennal buur bi nga xam ne kenn rek la mooy suñu borom bi subhaanahu wa taala léegi nag yonent ba mu judd dafa def ni ay baaraamam lem ñetti baaraam yi tàllal bii lem bi comme mu mel ni koy taaye liir bu juddu def ni ay baaraamam xam nga ne kon bu fekkoon ci jamono bii la hôpital ba mu ko defee boo moyul sage femme ak infirmière jàpp naa ne cent mètres bi la ñuy jël dañuy daw liir bu judd rek ni nii tàllal taxaw ngay daw mu neel taxaw leel la xew ñu ne ah yonent bi de moo jur yuumi shababata miqbaadan asaabiahu mislal musabbiaay yar na lu hulwa zahimami te ay tànkam la jiital moom sallallahu alayhi wasallam kuy judd bopp la ñu jiital yonent bi moo judd ne cëpp talal ay tànkam taxaw sànni baaram bi di wax naan allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila laa ilaha illa allah yonent bu ba mu juddoo la njëkk wax moom sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne loolu am na Moustapha nekk nag bi muy am deux mois ci la raam aba bi shaarayni fi l jimil qiyaamu wa fi daalin gëda mumsikal judreeni zahima mi kon ci deux mois ci la raam ba muy am quatre mois ma ngay dox di jàppandu ci miir yi moom sallallahu alayhi wa ba muy am deux ans nekk na ko ko am kàttan léegi nag lu yéeme mooy bi mu amee six ans ci la yaayam génn àdduna waa ama arbaatin aw sittatin hëlëkat ummu nabii bi abuwa awi zoomi alhaj malik nee na bi muy am six ans ñenn ñu ne quatre ans waaye six ans bi mooy lii gën a wér ci la yaayam génn àdduna mu am huit ans maamam génn àdduna Abdul Mutalib ama samanin wa fatul jaddi za hanamin wa xaatimin wa annu charwaana dil karami allahu akbar huit ans la am yàlla dégagé maamam am na lu xew Samba jamono bi nga xam ne ëmb nañ ko moom ci biiru yaayam neuf mois yi weer wu ci am na yonent bu ñëw yëg ni kii ëmb mooy sangu jamono mooy sangu àdduna ak alaxira tey booy seet bis bi tey nga def lii tey mooy bis bi nga xam ne mooy ñetteelu fan ci burdu bi tey la ñuy doog a tudd turu yonent bi yeneen ñaari bunt yi weesu yëpp da gis ne imam Busayri da doon xadal amin tadakkuri jiraanin bisi salamin mazajta dam an jaramin muqlatin bi dami ah am xabati reexu min tilqaai kazimatin wa awmada albarqu fi zalmaai min adami fa maa li aynayka in qulta kfufa hammata wa maa li qalbika in qulta stafiq yeymi démb mu nekkoon fa inna amaarati bi suuay mu muy wax ci wàllu bakkan tey nag mooy zalamtu sunnata man aya zalama ila an ishtaka qadama udarru min warami kon tey lay imam Busayri di doog a tudd turu yonent bi ma wax la ne la yonent bi biñ ko ëmbi mboolem juróom-ñeenti weer yiñ ko ëmb weer wu am na yonent bu dikk di naan yaay Amina mi jur ne ko yaa ëmb ki gën ñëpp di sallallahu alayhi wa sallam wa jaa aadamu tabshiran wa shiisu laha idrisu nooxun wa huudun wal qalila simmi summa zabiu kalimullahi kilmatuhu min awali chahri fii tartibi la tehimi mu ne yalax wax ja nag ne may leen ma mu julli ci waa ji ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina daiman hamma bi saabihimi nga yëg premier mois bi ko yaayam ëmbee di yaay amina ki ko njëkk ñëw di ko ndokkel mooy ki nga xam ne mooy mooy bàyyu bàyyu ruuxam yaramam di maam aadama kon buñ la laajee ki njëkk ñëw ndokkeel yaa aadama neel neel yaay amina neel mam aadama la deuxième mois bi yonte yàlla siis boobu mi ngi ci biiru yaayam troisième mois bi siisu eh, idrisu la idris moo ñëw troisième mois li nga xam ne mooy quatrième mois ki ñëw mooy yontu yàlla non cinquième mois yontu yàlla huud sixième mois yontu yàlla ibrahim septième mois yontu yàlla ismail huitième mois yuntu yàlla Moussa neuvième mois yonent yàlla Isa daal di ñëw def déclaration am nag ah def déclaration xam ne ne waa ji moom mooy waa ji moom mooy sangu aduna ak alaxira muhammadun sayyidul kawnayni wa saqalayni wal fariqayni min xorbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam kon mooy sangu aduna ak alaxira di sangu ñaari way dijji bopp di sangu ëllëg bu ñu teewee ci kanam yàlla moom rek lañ yaakaar sallallahu alayhi wa sallam min kulli wasfin xamidin xaaza afaala tafdilin rajaul baraya yowma musdaami kon yonent bi rek la ñëpp yaakaar waaye nag li gën a yéeme mooy bi mu amee six mois ci biiru yaayam ci lañ ko déclaré na ko wax Amina ne ko ki njëkk xam aw turam mooy yaay Amina yaayam moo njëkk xam déclaré ko ne ko kii nga ëmb boo ko imbee tuddee ko Muhammad min baadi maa qad xala waawun yuqaalu laha ha anti yow laay wax ak xumilti badran sayidal umami isa wadartiyaay samii muhammadan amriktumi aya kitmanin fa tërta ni mi Cheikh Hadj Mali nee na six mois am ci lañ ko wax ne ko déclaration bi ne ko eh, yëgal xarfu tanbiix la e eh, yëgal yow laay wax ak muy xool gisul kii wax ak moom moom yaay Amina mu gëstu gauche gëstu droite teen ci kaw xool ci suuf mais am na kaddu gi muy naan ko yow laay waxal ak moom anti yow Amina yow laay waxal anti yow laay waxal waa lu xew xumilti badran sayyidal umami yow yaa ëmb ki nga xam ne mooy weer di sangu mboolem univers bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne nag soo ko imbee nañ ko tuddee Muhammad kon nga yëg ni yonent bi juddoom bi nekk na judd boo xam ne li mu ëmb kenn mënut wax lépp moom sallallahu alayhi wa waaye li tolloog rekk liñ ci war a dégg ak keneen lu mu war a wax ak ñeneen ak ndax yonent bi mooy géej alxaaji Mansour dafa waxoon ne tabarakallahu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa bahruka taamin laa tukaddiruhu dila bi shaatii man jaa asbaa raadiya nee na ko yow wa bahruka taamin yow sa géej gi dafa mat sallallahu alayhi wa sallam te sa géej gii yow yonent bi laa mu ne ko ay vague ak i douche yuy du naxal sa géej gi bi shaatii ci tefes gi ci tefes gi nee na ku fa yem rek danga nga da nga doyal xam ne kii daal dëgg-dëgg mooy waa ji sallallahu alayhi wa sallam kon nag yonent boobu mbokk yi moom lañ dëgmal bésam li tax nag mbokk yi ñu def ko douzième jour gàmm ma jeexale foofu mooy ne dafa am ñu bëri ñoo xam ne ni ci weeru gàmm bi dañ ne ci premier jour bi ci lañ ci ci la judd ñu ne nii ñii na non deuxième jour bi ci la yonent bi judd ñii na troisième jour bi ci la yonent bi judd ci weeru gàmm weer wi ñu nekk ñiina na quatrième jour bi la ñii na cinquième la ñii na sixième la ñii na septième la ñii na huitième la ñii na neuvième la ñii na dixième la mboolem kon un ba dix borom xam-xam yi wax lañ ci léegi onzième jour bi kenn waxu ci onzième jour bi moom kenn newul ne ci la judd moom sallallahu alayhi wa sallam léegi douzième bi ci topp nga xam ne moom la ñu mël mu war a nekk gàmmu douzième boobu nag mboolem ñi gën a bari ci borom xam-xam yi gën a wér li ñu wax mooy ne ci fukkeelu fan beeg juróom-ñaar bi ci la yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam judd kon mbokk yi ñu ngi ko dégmal ñëpp góorgóorlu ñëpp waajal ko du nag rek gàmmu aussi que man su ma demul Tiwaawan gàmmuma wala su ma demul Tuuba gàmmuma wala su ma demul Kaolack gàmmuma déedéet gàmmu même soo demee mën nga dem Tiwaawan ta gàmmuwoo parce que boo fa defee lu neexul yàlla neexul yonent bi mais gàmmuwoo soo toogee sa kër julli say rakka def say naafila def say salaatu ala nabi def say istigfaar boo amee loolu yàlla dénk nga togg say ñam def say sarax boobee yaa gën a gàmm waa ji nga xam ne dem na Tiwaawan wala ma dem Touba te dafa def lu dëppoo teg lu yàlla gërëm kon mbokk yi gàmmu gaa ngi ñëw ñëpp nañ ko waajal incha allahu taala ah di ñaan suñu borom yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm ndax lii moom ñëpp ko bokk wa aamun suma shahrun suma yawmun ata fiyil huda xarnul quruni sururun fi sururin fi sururin wa iidun duna axyaadil uyuni yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm muy feet bi gën a neex ci feet yi feet bi nga xam ne jullit yëpp ñoo bokk mboolem kuy doomu aadama rek tabarakallah war nga bégee ci weer wi gën di def lu baax gën di multiplier yi baax yi nga doon def yàlla na yàlla sàmm ñëpp yàlla na yàlla yokk sunu cofeel ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na su ngeen bëggee ma bëgg leen ay waay bëggal leen ma waaji qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah bu ngeen bëggee man yàlla ma bëgg leen topp leen yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te waman yuti ilaha wa rasula fa ulaika maa alladina anhama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhadaai wasalihina wa xasuna ulaika rafiqa yàlla nañu yàlla boole ci ñuy bëgg yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay santaat bu baax sëñ Samba suñu technicien bu baax bii nga xam ne tabaarakallaahu may sàcc rek baat yi keneen di wax ne fii lay mburu mi xoyom xoyomee ci Amsa TV gii mbokk yi kon tabaarakallaahu gën leen a abonné ngeen leen a def yu abonné leen mbokk yi law te xam ne Amsa gii njëriñ képp la kon yal na yàlla sàmm waa Amsa TV gi yëpp yal na yàlla aar waa Amsa TV gi yëpp yal na fi yàlla def jàmm Serigne Moustapha Dieye yal na yàlla defal ko jàmm yal na yàlla defal ko sutur yal na yàlla yokk ijaabaam ndax kat tabaarakallaahu ku bëgg yàlla la ku bëgg yonent bi ku bëgg lislaam bi la waaye ku ku xel boroomam ci wàllu lépp lu muy yëngatu tabaarakallaahu kon mbokk yi ah ngeen bayu ko xel de yàlla mooy maye de yàlla mooy defal nit de mooy faalul li ma yurit de lu ko neex lay def te fa mu ko neexe ak na mu ko neexe waaye nag laa xarwa mu mel nii mu mel ndax fi mu bokk ku bokk doo mel neneen loolu da ngay baax rek kon loolu rek moo doon kàddu yi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirina rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba naar bi xormati wa bi xaqi wa bi sirri allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatih lima ughliqa allahumma salli ala sayyidina muhammadin alxatimi lima sabaqa allahumma salli ala sayyidina muhammadin nasir alxaq bilxaq allahumma salli ala sayyidina muhammadin alhadi ila siratika almustaqim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin bi haqqi la ilaha illa allah muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam